amul benn information. problème bi fa la tàmbalee warul waxee noonu. problème bi fa la tàmbalee dama yi amee ay prérogatives di dagg di joxe. maire fa nekk moo xam ne yu leer te siir te nit du ko dindi. Mhm. maire yu commune ku ne jox nañ la cinq terrain maire boo neexee wax koo xamante ni yow yaa doon def ñaxtu avant ngay jël mairie bi. Mhm. yow yaa doon wootee jiite di chaque fois ngay kaas naan géejawaay bu koy lal suufu géejawaay doomu géejawaay mhm. kon boo ne mooy yëgoo ko wala waxoo ko da ngay wax li la nekk jox nañ ko 30 terrain mun a jëlu ko mu wooñu vidéo yaa ngi fii dinaa la ko jox mhm. mun a jëlu ko parce que day bañ ko ko taqal doomu géejawaay bu ñu ko joxee d'accord na si li muy bañ mooy euh, benn député ñu jox la un hectare wala keneen ak keneen loolu yaa 6 mois 7 mois ci géej gi man ak moom ñoo ànd mhm. yaa ngi fi ma yor kon ñoom maire bu ci wax loolu da wax loolu ne xam nga li xew ñun population Guédiawaye ñenn ñi si ëpp ñoo wax ne nañ ko déclarer parce que amuñu fi ñu dëkk soxla nañ ay école soxla nañ leneen ak leneen parce que dëkk la boo xam ne dafay màgg yow bu dee Guédiawaye nga dëkk dama ne mhm. man gënoon ma faa dëkk 112 laa fa dëkk ak léegi mhm. jaar fa mbëbës li ñu ko defal boo ñu tuddoon mhm, nekk fa ay bandi nañ ko joxee moo ñu neexut mais waxuñu bu kenn jox bu kenn jox ay am na ay agents yoo xam jox nañ leen ay agents municipaux yoo xam ne dañuy liggéey madame du ma wax salaire jàmm mais koo xamante da ngay liggéey di war a fay cent cinquante mille francs appartement. ñu mhm. ñu yërëm la may la dara ne la dëkkee ko yow te sa salaire matul sa même cent mille francs nga war a fay cent cinquante mille francs kooku bu ñu ko joxee mu dëkk loolu jaaduwut ba ñu ko fa dëkk de mais nañ ko joxee luñ d'accord ba ñu tim ko dëkk ak ñun parce que man am naa kër Touba am naa kër feneen dëkk fu la neex si si Sénégal gii mais li si ëpp ko war a delloo waa Géejawaay ñun ba ñu ko dëkk ak ñoo ko laaj ñoo ko bëgg dëkkee man mi doon wax danaa xëccoo maire bi maa jël quatrième te Italie laa jóge ñëw sama projet yi ma amoon ay ay immeuble municipal yi ma gis Italie nit dëkk man dëkk naa ci kër cinq ans yoo yooyu bu ñu ma ko joxoon moom projet yi man ma wut financement tabax ko def ko ay man daal li ma jaaxal yaw stage ay maire yu am ay trente terrain hmm. Ousseynou cinq <laughs> lu nit dul benn nit ay cinquante terrain waa mais yow stage nag fan la ñu jëm ah, ñun ñii suñu génération ñun man pap wëz ak ci suuf kañ la ñuy am ay terrain mooy pàccoo bi xew ci réew mi rek loolu oustaz lii du dëgg du yoon nag loolu li monsieur Faye wax léegi rek dama ko ciy fekk si président Diomaye ak Sonko li ñu wax mooy jubal jubbati li li dëng ci réew mi ak li fi yàqu ak li fi jaxasoo dafa bari lool lii li nga wax nii bokk na ca parce que maire nga rek wala préfet nga wala je ne magistrat nga wala kii rek ñu dem seet domaine national rek ñu daggal la ci un hectare deux hectares am dégg naa am na ko am deux cent hectares. yooyu mbuur waaw waaw mbuurkat mais fii mbuurkat waaw waaw noonu Sadio ko si njàmbaasaale noonu rek. Mhm. ah parce que même même affaire mhm. mais monsieur Faye man euh, li li ma la bëgg laaj rek mooy euh, danga wax ni da nga def Italie euh, presque vingt ans. bi nga dellu see am na ay réalisations yoo xamante ne def ko ko am collaboration avec le maire. Euh, Baydi Seye fa Baydi Seye bay di Seye mhm. mais loolu ay contrat la woon yu ngeen signé woon ci ne daf la war a fay xaalis wala dafa am ay daf la war a daf la war a fay ci suuf si. waaw contrat yi man yi ma si ak moom. waaw ña ña ñaareel wala waaw tontu loolu d'abord. waaw li ma seq ak moom man lenn li danañ def moo koy fay suuf si. Mhm. ñu def avenant muy lu leer. tey nekkatu fi mais fu ma ko présenté nga xam lii kii lii la seq ak mairie bi. Mhm. loolu moom lu wër lu leer la. Mhm. leneen li daf ma ko fay tabax naa ko pare mu jël xaalis fay ma mu jaar trésor ñu fay ma. Mhm. donc loolu moom lu am la. leen ni fay na ma ko xaalis leen ni fay na ma ko ñu waxtaan mu intéressé ma comme damay euh, damay tabax euh, damay tabax mu fay ma suuf ma daa ko jël ko am na ñeneen ñoo xam ne séq naa ñoon ci leneen nekkul ñëpp dañ koo liggéeyal donc parce que commune bi amul woon doole d' après jëkk na ak ay nit te ñooñu ku nekk da ngay indi papier yu leer war ne da nga sëq nag moom si lii ak lii ñu ne ku nekk nga xamante ni man mi nga xamante ni ma sëq moom mu fay ma suuf. Euh, bon euh, beneen naa laaj beneen ba parce maa ngi ko doon junj sànq amee dara boobu wax nga ko sànq nee na nee moom fu moom mooy maire bi mais nee na moom xamu si <laughs> xamul xamul xamu si dara nga ne yow moom bon moom am na ay terrain am na ay terrain foofu. waaw oh, euh, dama ne waaw toog na mu ne woow nañ ko pour jox ko nga xam ne leer na ma ñoom jël nañ ko jox leen ko ci boobu jamono Aliou euh, jox commune bi moo koy ñëpp ko bokk wala dañ ko ko jox à son à son propre dañ leen ko jox Aliou Sall doon jox conseil municipal bi comme ay conseillers wala ñu jël cinq terrain ñu ne maire bu nekk si commune bi jël nañ cinq terrain affecté ko yow jox la Ahmed Aïda ba mu ñëwee. dafa gratuitement la ñu ko jox ñooy xool dañoo jaay wala dañoo tabax wala dañoo jël Ahmed ba mu ñëwee dañoo ànd mu ne maa ngi dégg ñu may wax ne waxatuma dara am na trente et un ñu wax dañ ma koy jox woo nañ ma ne ma kaay ñu jox la trente et un mais man soxlawuma trente et un ko woo ko rek état bi fi nekkoon ñoo ko woo bañ ko wooyee moom taxaw na jii ci fiwu mi ngi fii vidéo yi ne jëluma mais yow en tant ñu fal la population Guédiawaye fal la ci fal mu rafet ne la yaay de la ville yow wow boo mënut a taxaw di kaas ñun ñu nga xam seen affaire géejawaay gii mm. Sénégal yëpp dëgg nañ ko àdduna mm. yow nga ne xamoo si dara yaakaar naa sa taxawaay war nañ koo seet yow wala yow yaa war a njëkk si démissionné jël say kayit na kat yoon waa géejaay yi ma faloon seen yëfa ngi dem nañ toog xaw ma si affaire dara li muy wax dara amu si bu leen xaw ma si dara day wax